lii rekk doy na prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence sëñ bamba ku ñu fa relance jagabaw nga xam ne doo xaadim rasool yonen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche sëñ bamba nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba muritoo raw na alliance suñ bamba ku woote gis sa présence ummanti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence bamba say xasidaay suñ opulence màggal la wootee du ambiance borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa jar woote conférence bu kenn toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caasak enfance bamba nga leen rawoon yaay croyance sëñ bamba sa mbir dee xel mënu ko science yaa yéeme yow xaadim rasool am di Moustapha bamba sunu assurance bamba murito woote gis sa présence ummanti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence. bamba. say xasidaay suñ opulence. sëñ bamba. màggal la wootee du ambiance. borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa woote conférence bu kenn toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caasak enfance nga leen rawoon yaay croyance sëñ mbir dee xel mënu ko science yaa yéeme yow xaadim rasool Amdi Moustapha bamba sunu assurance bamba muritoo raw na alliance ku woote gis présence munti doon kër mooy suñuy agence bamba say xasidaay suñ opulence sëñ bamba màggal la wootee du ambiance borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa jar woote conférence bu kenn toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caas ak bamba nga leen rawoon yaay croyance sëñ Bamba sa mbir dee xel mënu koo science yaa yéeme yow xaadimu rasool am di Moustapha Bamba sunu assurance Bamba muritoo raw na alliance ku woote gis sa présence fu mënti doon xaadimu rasool say kër mooy suñuy agence. bamba say xasidaay suñ opulence. màggal la wootee du ambiance. borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool. yaay sunu autosuffisance. bamba. yow yaa jar woote conférence. sëñ bu kenn toog naan day patience. ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa ak enfance bamba nga leen rawoon yaay croyance sëñ bamba sa mbir dee xel mënu ko science yaa yéeme yow xaadim rasool am di Moustapha bamba sunu assurance bamba woote gis sa présence ummanti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence. bamba say xasidaay suñ opulence. màggal la wootee du ambiance. borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool. yaay sunu auto suffisance.